sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi al wa sallim tasliman kasira maa ngi nuyu mbokk yi ak ñépp ñi nga xam ne ñëw nañ ci bisub Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi nuyoo bi nag dama koy def ci turu njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké di dalal gan ñi ak sant sheikh Mouhamadul Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moom mooy ci initié bis bi ca comme ni ma ko waxoon barki démb rek bis bi mooy quinzième journée quinzième édition mais gis nañ ne année bu ne yàlla da ciy gën a def xewal muy gën a rëy di gën a yokk kon sëñ Basiru gannaaw bi ñu dalalee mbokk yi yëpp njabootu sëñ Baara gi yëpp ñu ngi lay sant ndax xam nañ ne lii ngay def seen tur nga koy ngeen koy def njabaru sëñ Tuubaa yëpp tam ngi lay sant lii nga def nag day lu solo ndax dana dana permettre njabooti diine yëpp euh, jaxasoo nekk benn kon sëñ Basiru maa ngi nuyu sëriñ Moustapha Abdoul Lakram mi nga xam ne moo jiite délégation bu waa kër maam Cheikh nga jagle leen bis bu màgg bi di nuyu mbooleem kilifa yi nekk ci kaw tribune bi ca léegi tudd nañ seeni tur mu ko jéemee day day gudd ca day duma mën a wax ñëpp kon daal ñu ngi dalal mbooloo mi di leen wax marhaban bikum te ñaan yàlla lépp liñ jublu ci bis bi ak li ci bëgg yàlla matale ko waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu bisimilah Serigne Cheikh Bara Lahad bisimilah Serigne Mamor Touba Toul agsi na léegi Serigne Bassirou ministre de la femme de la famille et de l'action sociale eh, eh, ministre de la femme de la famille et de la protection des enfants soxna Fat Diané moom Serigne Ndiol Diané moom Xëri Jaara Touré moom Mor Marema Touré moom soxna Mbacke Awa Ñang moom Ibrahima maam Maram moo la jox lii di kenn ci sëñ Moussa Lakaram waaye ñu ngi rafet lu teewaayu Mamor Touba Toul ak Serigne Xaasim Mbakke Serigne Saliou a ngi agsi Serigne Saliou moom Serigne Xaadim Awa Ba borom ngi agsi ki def jumaay milliard Serigne Saliou a ngi agsi ki jàngal ay rakam ba ñëpp mokkal alquran ki taxawu njabootu sëñ Xaadim Awa ki njaxa moo taxawu njabootu Kébémer xalifa bu yaru xalifa bu bari xam-xam bi xalifa bu teey bi xalifa bu baax bi. boo ba moom Cheikh Mamadou Lamine mbooloo mi ñu may Serigne Saliou mu toog xam ngeen ni Abdoulaye Dia Sanico mi nga xam ni ni mu def alxuraan den ak doomu ndeyam Moustapha Ndiaye ànd boobu yàgg na Alaaji Mansour Mbaye nee na ma ànd bu yàgg la Abdoulaye Dia Abdoulaye ñu ngi lay nuyu jaan mi nga defe alxuraan yal na la alxuraan fayal boppam yaag sa doomu nday joojule Moustapha Ndiaye léegi nag da Cheikh dañoo bëgg bu sëriñ bi toogee ñu déglu nag kàddu gu mbind kii bëgg a wax mooy sëñ Cheikh Baara Lahaat sëñ Cheikh Baara Lahaat Mbakke mooy mooy bëgg a wax xam ngeen sëriñ Moustapha bu Cheikh Sidil Maxtaar mooy borom gu mbind xaadim